jiitoo dina gën a solo. loolu laa wax dama ni confession yëpp laa wax dama ni bu ci xalifa xalifa yëpp ku ci nekk tànn ndaw bala doy ñu ñu boole leen ñu nekk organe de veille d'alerte et de conseil loolu suñ ko defee conflit yi nga xamante ni que ne day ñëw wala ñëw na bu ñu ca taxawee dafa mel dinaa yaakaar ne dana am safara kon loolu dama koy ñaan monsieur le président de république su fekkee ni que ni mu ngi may dégg wala ku ko dégg mu jotali ko ko ni ko jot na. parce que de ni ñu gis euh, ren li kilifa diine taxaw taxaw bi taxaw te it bi mu mettee ñëpp seen xel ci ñoom lañu dem demuñu ci xel beneen beneen xel na kilifa diine yi wax nañu jóg wax nañu jóg nañu kon loolu defe naa ni kenn ni que ni leer na ci boppu nit ñi. kon nag ñooñu place bi ñu war a am ci réew mi war nañ leen ko war a te it mais sauf que euh, kilifa diine yi du rek. Euh, jullit yi euh, église bi mi ngi fii te euh, Sénégal pays laïque la donte quatre-vingt-quinze pour cent ay musulmans lañu boobaa nu ngeen def ñi nga xam te ne ñoo bokk ci jàngu bi. moo tax ma ne la toutes les confessions su ma waxee confession rek làmb na ñëpp kon ki gëm ak ki gëmul yëpp. organe la bo xam que ni ñepp dañu nekk ci biir parce que Sénégal c'est un pays laïque waye buñu ñu que ni c'est un pays ak grande partie musulmane donc lolu aussi duñu ko bayyi xel motax tax la bo xam que ni ñoñu ñepp dañu cey nekk mu nekk lo xam que ni dañ fay waxtane di anticiper sur certains conflits mo nga xam que ni fu mu warona ag àgg du fa kon lolu dama koy ñaan kilifa kilifa réew mi bàyyi ci xel su su fekkee ni jotul la sotti it gëm naa ni que ni. ñi fiy ñëw ñi bëgg réew mi di ko laaj su boobaa dana danañu teg loolu ci taabal ji parce que dafa jot que mu am organe bu mel noonu parce que bi li xewee tey ji ñoo ñëpp la ñu yaakaar église wax na kilifa diina yi wax nañu borom xam-xam yi wax nañu ñëpp wax nañu kon loolu dafay firndeel que ni que ni loolu dafa mën a ne kon nag nañu ci bàyyi xel ndax loolu dafay indi stabilité ci am réew parce que nteew bu amul stabilité dara du dox su su su amul stabilité économie am du dox su amul stabilité it coono yi dana bëri déséquilibre baaxul injustice baaxul kon yooyu yëpp dañu ci bàyyi xel ba nga xam te ni que ni su ëllëgee si biir mm, dinañu mën a anticiper ci yu bare bare bare bare bare bare. est-ce que da nga bëgg a wax ni ci li fi mujjee xew ci coowal Ousmane Sonko si euh, daa am injustice boo ci seetlu. waaw su su ma su ma waxee injustice du ma du ma du ma jël rek kaawu euh, Ousmane Sonko. parce que je ne maîtrise pas euh, dossier boobu xaw ma ndax li ñuy wax am na xaw ma lu ñuy wax am na euh, wax wax amul waaye lu ci mënte am dana leer parce que dana dana jaar fi mu war a jaar moo tax ma ne que ne justice dafa baax parce que justice su amee su fekkee ne am na ñëpp dinañ ko xam su amul it ñëpp dinañ ko xam ndax su euh, su su fekkee ne nag justice amul ay léewén dafay lënd ci bopp nit ñi boobu bu ëllëg ci biir mën na jër lu ne te nag yàlla dafa xaw ñu daaw di ko ne dama lay yónnee. pour nga woote ndax yow vous êtes le le le juge des juges soy woote nak na nga woote ci deug te bul topp sa passion ndax so toppee sa passion di nga wacc sama yoon te ñepp ñu waccol sama yoon bes penc dina len mbugal mbugal mo xam te tar nak kon nak kuy atté ak ku ñuy atte yëpp kenn ku ci nekk sa ax ak sa yello nañ la ko jox ba mu mat sëkk moo tax loolu duma ci sori. kilifa dina yi seen taxawaay ci réew mi am na solo lool ndax ay wi doon waa jib fay nañ ko waaye est-ce que seen euh, tànki jàmm yi war naa jatang yoon ba ku def wareesu laa àtte. déedéet moo tax ma ni justice dafa baax ci am réew justice bu amul ci réew bés bu lu mel ni amee bu dégénéré woo kenn mënu ko téye te it gëm naa ni que ni amul benn xalif fii ci Sénégal boo xam te ni que ni daf lay sant wala mu lay wax la nga xam te ni que ni bokkul ci li nga xam te ni que ni moom la lislaam santaane ndax njaboot nag ku ko ku ko yor faw nga jaboote ku ne di nga jabooti ku baax di nga jabooti ku baaxul waaye damay wax ni que ni kër lépp ngay boole pour que kër gi mën a jag doon ne rek ñi baax laay fat sama kër ñi boot ma génne leen ci biti kon ñooñu ñëpp kilifa yi la gis nga soo xoolee coow li kilifa yi yëpp kenn ku ci nekk sa njaboot nga fa. kilifa gu nekk tey jii boo demoon sa njaboot toogal fa ma la fa ma la toogloo ñëpp toog fa kon loolu dafa am solo moo tax ma ni Sénégal su doon am néeg la ji yëpp mooy kilifa diine yi bés bu ji ñi nag màbbee lépp dana màbb kon nag loolu dafa am solo lool ci suñu réew mi. léegi nu ñu nar a situation par exemple fekkee ne euh, problème bu am justice war ko lijjanti mu nekk ci kanamu yoon kilifa diine yi jug ngir euh, jàmm réew mi boobaa tamit est-ce que du am jafe-jafe maanaam déséquilibre day am yoon dootu mën def liggéeyam ni mu waree. mais Georges bi yëf yi commencé. Euh, déggu leen kenn wax ci parce que xalaatoon nañu di ko nii foofu la yem justice dafay def liggéeyam ni mu ko war defee mais nag gis ngeen développement bi li mu ni mu ci li fi mu fi mu egsi développement bi nag fi mu egsi moo neexul kenn te bu ñu bàyyi woon aussi réew mi tàkk kon nag loolu faw kilifa dina jog te it defe naa ni que ni loolu ñëpp ñoo ko laaj kil ñoo ko laajoon koo dégg mu ne na kilifa diine yi wax kon nag kilifa diine yi ba mu jotee wax nañu waaye nag du caaginu dañuy wañ diw wala ñu wañ diw ni ko defal nangam déedéet ndax kenn ku ci nekk la ngay def su dee mu nga jaar ci yoon kenn du la ci am lu mu lay xarab ëllëg waaye nag soo wàccee yoon ay léwén nit ñi dinañu xam ne que ni lii baax na wala lii baaxul. Mhm. thème bi buñ ci delsee thème mu appel bi euh, yar gone yi ba euh, duñu am melokaan wu jéggi dayoo extrémisme. loola ku ko war a def waaye jur yi lekkool bi sëriñ si euh, ku war a yar gone yi ba euh, du nu mel nu nu war a mel nu nu warta mel waaw kër euh, yar boobu defe naa ne ci kër yi la war a commencé ndax kër yi foofu la ñu foofu la foofu la xale yi di juddoo foofu la ñuy màggee ba la ñuy génn ci biti kon yar bi ci kër yi lay commencé moo tax ma wax la sànq ma ni la Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam soo demoon ci dëkk yooyu ma la wax kenn ku ci nekk de ëtt ba nga yaroo yar nañ la fa jar bañ la war a yar def nañ ci war a def liñ ci war a def ba nga xam te ni que ni soo génnee ci mbedd mi di nga am comportement a comporté wu. kon nag yar boobu dafa commencé ci kër gi bala muy génn ci mbedd mi kenn ku ci nekk nag am nga ci cër ndax su génnee ci mbedd mi. ñi ci war a wax war nañ ci wax kilifa diine war nañ ci wax kilifa aada war nañ ci wax jàng bi war nañ ci wax ñëpp war nañ ci wax ndax dafa am Sénégal lu mu bindoo damay wax ni que ni Sénégal ci àddina bi ci Afrique dafa am spécificité damay wax ni que ni li yàlla dëxëñ ci kilifa yu baax ci réew mi amul fenn ci réew mu mu ne kenn ku ci nekk nag la nga dangay demoon sax ba nga ni que ni xaj na bu woon yonent bi yonent bi man lay doon kon xam nga ni loolu lu am solo la ci am réew. moo tax loolu war nañ ci bàyyi xel lool ni ñooñ ñëpp seen njaboot rek ñoo fi nekk ñi nekkoon ci tali bi ñëpp tey jii njaboot yooyu rek lañu. ñoo ñëpp nag tey bu ñu woon seen njaboot hee toog leen déglu leen ñëpp dina toog moo tax ma ne ñooñu dañu leen war a delloo seen gëdd jox leen li ñu leen war a jox ba nga xam te ni que ni yar boobu dinañu mën a continuer di ko yar njaboot gi ba nga xam ni que ni yu baree baree baree duñ ci mën a àgg kon daal jàpp leen ni que ni yar bi moom ci biir kër lay commencé bala moo génn ci biti su génnee ci biti nag kilifa yeeg yu diine yeeg yu aada yi kenn ku ci nekk am nga canaux ya nga xam te ni que ni soo ko defee wax ko sa njaboot sa njaboot dinañu dégg la nga wax. Hmm. par rapport sànq conseil supérieur islamique bi nga doon wax sànq yaa ngi woon sa confession yëpp dañ leen ciy boole boole ci catholique yi est ce que kon du ñu soppi tur yi au lieu de conseil supérieur islamique par exemple ñu ne conseil supérieur religieux par exemple ñëpp jógi si seen bopp moo gën boo ne islamique rek islam lay renvoyer. wax nga dëgg xam nga loolu euh, dama dama xalaat ni rek war jot na Sénégal am organe ba nga xam te ni ñooñu ñëpp dinañ. mu wala mu tudda le yebbe la ndax Sénégal def bu ñuy wax jullitit eh, gis nañu ko ni dëkk dëkkin bi ñu dëkk ak ñi bokkal ak jullit ñi kon nag dëkk bu rafet la kon nit leneen lu ñuy def it ñoo koy ànd di ko def kon mu sant nii wala mu tudda le lépp la loolu dama ko dama ko dama ko lancé la ñu koy tuddi nag ndax eh, liggéey la boo xam te ni que ni liggéey bu am solo lay doon bu yaatu lay doon kon nag loolu yëpp bu ña war a daje suñu dajee danañ ko tuddee nañ ko war a tuddee ba nga xam te ni que ni. Hmm. bés bu taxaw jotee bés bu wax jotee ñoo ñëpp suñu génnee bu ñu waxee am na ni jàmm dina am ci réew mi. lii faral di yee fitna ci Sénégal euh, du ay waaso du ci diine du ci tarixa du ci dara politiciens yi rek seeni xiiroo ki xëccoo mooy faral di taal Sénégal am na lu ñuy wax troisième mandat am na ñu jàpp ni kii fi ne bu firi woon askan wi ne du yootuwaat dana régler problème yu bëri gëm nga ko. mais gëm naa ko xam nga xam nga damay wax ni que ni luy yee fitna wala muy taal am réew kenn waru ko wax wala kenn waru ko def kon dama xam ni que ni suñuy wax premier premier mandat deuxième bay troisième mandat te constitution bi leer ci bopp nit ñi juriste yit leeral nañ ko xam nga Sénégal dafa am paradoxe boo xam te ni que ni dama damay nettali benn anecdote dama toog sama wéy jor booba ndeysaan ñu ngi ñu ngi seetaan télé mu amoon benn débat eh, ñaari pouvoir opposition ñuy débattre coow li bari ku nekk naan réew mi toj na yëgu mi yàqu na kenn naan réew mi bi mu ni mu neexee musu la neexee noonu góor gi di ko ba yàgg mu waa bàyyi ma ñëw mais kan moo ci wax donc xam nga loolu dafa dafa doy dañoo dem ci réew mi ba nga xamante ni que ni kenn xamatul kuy wax dëgg ak ku dul wax dëgg te yàlla dafa wax ni que ni que ni bàyyi leen jël dëgg ba ko def aw fen wala ngeen jël fen bëgg ko ba def def def dëgg wala talbisul xaq bil baatil wa taktumul xaq wa antum taalamun yàlla nee na rëbb naa ñu mel noonu kon nag kenn kuy def politique ak loo jiite ak sphère boo mën a ne bu dëgg jotee na nga ko wax bu taxaw jotee na nga taxaw wax la nga war a wax ndax far baax na waaye bul far ba wax loo war la wax wala nga def loo war la def te gëm naa aujourd'hui que ni monsieur le président de la république mën na yeewi

dafa am loo xamante ni que ni fukk fii jamono toll waruñu fi nekk di ak ngaayo ndax ñu sur le plan économique sur le plan social defe naa ni que su fekkee ni que ni ko ñu nekk fi di ci ay ay nangam ce serait une catastrophe parce que gis nañu bi que ni que ni fépp économie ñu commencé nga ni que suñu ce serait une catastrophe. Seydina ci général des